kooku ni mooy daanale xam nga xam nga ni mooy daanale nii laa kontaanee nii laa xam léegi wuy ma mereetu ma laa dangaa xam li ma bëgg nga koy def ah tey nag biti bi dina ma namm defe naa vingt heures laa dugg dara jëy léegi du ma génnaat صلاتا يو صلا لي تاكن انا فعلي اجي ربي يو ارامل لك لا موتا لو حب walang lan la. danga doon jaay yëf seytaane ne dangaa far sa fef bee ñëw ne man ngay àgg si man ngay toog man si man nga si man nga dugg. non non non si man ngay dugg yow. xam nga ne doo toog ko non bébé s'il te plaît yow sa di ko tëkkaleeg caane ngi wàcc sa valeur quoi cest à que man li ma wax noonu ànduma ak sama sago rek la yow xam nga ni man 17 fu mu koor gi loolu rek la bébé bàyyi ngay def waaye yow tamit eh yow wala yow doo dégg li ma la wax xam nga la laa bëgg nga génn néeg bi abal ma. génn néeg bi pour lan. fii eh, tëdd jot na damay tëdd. fooy tëdd. waaye yow waaye lu yow génnal. fan laay tëdd. eh génn néeg bi. non su ma génnee néeg bi fan laay dem man fii mooy sama néeg di fii laa ayee si yow su ma fi génnee fan laay dem. nga dem si salle bi. demal si saal bi moo gën yooyu sukkatoo la waaye fii doo fi tëdd. waaye li ngay def mënuma ba xoolal wuy ma ah da ngay kaf da ngay kaf moom moom da ngay kaf xoolal dewuma fenn bàyyi li ngay def waaye. eh rombal. dinaa kaf yow génnal fii waaye. waaw lan la. may ma ba ma yeggale lii lii rek ma sol ko yeggal te yow jaaroo lii loolu lay xaar. waaw. Leïla moytul fer yi bala moo dagg ngir yàlla ak yonent bi Leïla lan la yow tamit lan lan waa léegi waa léegi baal ma àq kon waa waa léegi doo mbaal àq ngir yàlla. yow génnal fii waay. waaw Leïla lan moo tax nga bëgg ma faral si saal bi. kon génne ko fii. non génne ko ma tey doo muy génn. dafa noonu balaa kii bi di tànn. yooyu de bu la seytaane teye ba ma jóg fii fekk la nga taxaw na. papa loo def fii. sa yoon nekku ci. xanaa tëddi woo ci Layla. xanaa dëggoo li ma wax du dara li jënt lu sa yoon nekk. xanaa coow biñ doon coow sànk moo tax. demal lañ ko tëddee. du li nga bëggoon. am nga ko dangay ngay bëgg man saa su ne may coow ak Leila yow dafa mel ni loolu moo lay gën a neex nga may toroxal caane sonal nga ma caane lëjal nga ma yow yaa tax ba Leila ni ma bu ma tëdd si néeg bi waaw loolu nga bëggoon nag am nga ko kontaan nga bëgg nga reetaanal tabax sama kër bu doy di joxe sama dépense heure tëdd jot ñu ne bu fi tëdd demal ci saal bi lépp yow la waaye baax na yàlla na ma yàlla àtteeg yow. baax na kon. bon nga. waaye papis sa sutura kër yow yaa ko xaawi waaye lenn rekk laa lay wax bu subaa nga tey la jóg ndax sa papaañ si kër gi balaa muy gën a ñaaw ko xamee nga ko nii ba bàyyi mu ñëw France nekk rek déedéet papis loolu duma ko def malgré dàq na la nekkam mais ay bi ayam man ay yow. waaw yow jëkkër ak jabar dafa am ay ay ay sama jabar nga moom sama jabar la. loolu yëpp dëgg la mais jàppal ne bu ma la fatee doom juma ci am te doon doom bu barke bàyyi noonu rek tëddal ba suba ca. waaw dama dama. kër gi ku mu neex ak ku mu nakkari maa yore baatu kër gi sama loxo laa ko teg sama loxo ku mu naqari nag mën ngaa diriwaat sa bagage ni nga duggee woon liggéeyee ko noonu kenn mënul ci man lenn dinaa la wax tey benn mbir comme que danga may euh, affronter léegi defatoo ko indirectement directement nga koy def bàyyi leewit ma wax la gis nga wolof day léebu nii xale bu reewee téegalu bàyyi ba du wér ndax fu mu tollu rek da koy dégg tu raison kër gi yaay chef yafi fi dogal lu neex moo fi am te yaa fi moom dëgg la ndax sa jëkkër la ko jox moom xam nga amul fulla mais man kenn ma ndax li ma xam dafa bari boo jógee fii da ngay dem ci sa nga laaj ko kan sa xam naa ni mosoo dégg sa waxi baay xam naa ni it mosoo teg bët sa baay xam naa ne xamoo fu sa baay féete laajal sa ndey nan nga juddoo ak kan mooy sa baay bu ko defee bu ma dellu see ñu wax lu dëgg